واسعة bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi tudd Ibrahima Lo kaatibul xadim noo ngi nuyu mboolem ñi seetaan ak teewlu ñëpp te ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ni ko taalibe yëpp di defe rek ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha digle ci xasiida ak alquran nit nga xam ne noonu la ko digle woon daaw mbooloo mi it doon mbooloo moo xam ne daaw bi sëñ bi santaani liggéey boobu rek. ci lañ am yëg-yëgub ne gannaaw sëriñ bi mbooleem lim liggéeyale yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam lépp ci am mbind la ko liggéeyale te lii sëriñ bi woote muy xasiida yi ak alxuraan la tax mu des fi ba tey jii nu man di ko jariñoo am mbind a tax ca daaw nag ba sëriñ bi wootee ca la mbooloo mi taxaw ngir na kon nan daje fas yéene bis bi la cay sun taxawaay ñu féete ci wàllu woowu ci wàllu mbind mi yàlla dogal itam ñu amoon ca liggéey bu am solo bu dee daaw bindoon nañ ca lu mat téeméeri nuur daaree nii ak lu teg ak yeneen xasida yoo xam ne lim ba takku na lool bañ liggéey bi àggee itam ñu jébbal ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké bi yàlla dogalaatee itam sëriñ bi woote war ren itam ndax daaw bi liggéey bi jàllee sax dañoo nos mbooloo bi mu doon mbooloo moo xam ne dafa nosu ñu dem ba ca ci Cheikh mun Mountakha jébbal ko suñu liggéey boobu yi mu jox nu aw tur tuddenu Fawaaidud Daarayni bindikati borom Touba ba mbooloo moom tey jii moo taxawaat ngir liggéey fas yéene liggéey ba nga xam ne liggéeyu nañ ko daaw ñu liggéeyaat liggéey bu ni mel incha allahu waaw xam naa ren nag moom dañ koy wuteel ak daaw ndax daaw moom dañoo tànnoon genn xasida rek ne nuur daaree ni la ñu bind ba bindoon ca lu mat téeméer ak lu topp waaye ren nag moom day mel ne dañ koo gën a yaatal mooy dañoo fas yéene xasida yu bare bare bare ñu bind ko tàmbale ko ci xasida ak tuub gii di astaghfirullah bihi teg ci xasida ak muqaddamatul xidma xasida ak nuur daaree ni jaalibatul maraaxib matlabul fawzayni mafatixul bishri bidayatul xidma wakaana xaqan uh, fatxul fattaax fatxul mukarram xam naa du ma taxaw nii ngir mën a teew lim bi waaye daal day mel ne xasida yu wuute wuute yu bëree bëri incha allahu rabbi fas nañ ko yéenee bind ci bis bi xam naa ci loolu yi nag day mel ne nose nañ ko noo xam ne lenn lu nekk am nañu koy bind day mel ne xasida gu nekk rek dañoo tànn ci mbooloo mi ñoo xam ne ñooy féetewoo xasida googa bokk ko bind ko ba mu àgg bu loola bu ñooña àggalee day mel na ñooñu am na koo xam ne moo jiite téere booba nga xam ne bu ñu àggee rek kooku moom mooy dajale téere bi ba mu mat sëkk ba bu ko defee bu yëpp dajee nag ñu doog a dajoo loowaat nag toppandoo lépp incha allahu أبو سبتي المختار وهو ابن أمي علي على خطيه نعم المجرم أصاب رسول الله إني خديمه مهيبا لكم في الله والله يقلم يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة حروف القصائد